laa ilaaha illa waaw maye moom bëgg naa ko lii bëgg naa ko lool daf ci baas koy gaana baas ndaanaan bi dajeel kii dajeel moo njëkk daan sabaa muy Brice Diouf mbër mu xees Brice ak ay ndaanaan Mamady doxalal koy njëkk a ne xam nga hmm. yombal na ko kay. wala caméra yi. Brice. salaamaaleykum mbooloo bi. ginnaaw bañ sant yàlla julli seenante bi. sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama yaay suñu borom yërëm ko te xaaral ko àjjana firdaws di ñaanal sama papa suñu borom bàyyi ko fi ba ba mu fekk sama njëriñ waaw di nuyu sama gars yi nag ñi ma àndal ci mel ni Jili ak Omar Touré di bëggee waa Géejawaay Baxdaat Gunaas bàyyi ma maa ngi koy baax baax Awa Baldé sama xarit sama jigéen maa ngi koy woo baax a baax nga ko mu jënd bolog yi du woo Pape Faye borom Angleterre kii nag aw ma leen lu may wax moom leen rek laa koy wax mooy gaynde gu bu lekk gaynde bu lekk ba suur këll daagu jëm ca déeg bay naan mbott buy ngoox du ko teree naan waaw kii du gaynde kii du gaynde nit la gaynde la wax ne nit moom nit la du gaynde kii bu amee lu muy jaay la 14 na fi indi moo jënd ci tool bu amee lu muy jaay la 14 na indaale tool ah dama koy jënd kii bàyyi foofu muy dellu rek jëlal lépp bu jour ba di ñaan yàlla suñu borom yàlla may am ndam may ma ndam ci kawam. jëlal lépp dama leen di seetaan rek. ñu ñu ëffal leen. maa ko ëpp doole. maa ko dàq bëre maa ko ñu gën a ñeme lu mel parce que Seydina Muhammad te la 14 ngay xam. kii ñi ma daan moo ci gën a ndaw. Brice. il temps ma pe weesu fii parce que bëri naa fi ay mbër lu ma tudd tur ñoo ngi bëri grand combat il est temps dafa jot. Brice Ba ku ko bëri yàlla la yàlla may ndam. waaw parce que dafa tardé si làmb moo waral ñi doon ñi doon bëreel nekk di bëre grand combat man tardé si làmb dama teel a jël ko te dama koy dàq maa ko ëpp mbooloo maa ko dàq bëre gën ko ñeme lu metti te billaahi wallaahi wa taalaahi bu dëggalee boppam bu dëggalee boppam eh. une minute làmb ji du ko am. foofu muy ndellu di wax rek waxal ba suba yàlla ma yàlla may ndam sa kaw. di woo sama waa dëkk waa Bundu waa Mbayaar waa Ndofène. waa Pataar bàyyi ma kenn waa Touba di sant sama mag ab Ablaye maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Amet Seeru Kumba di sant Jiili di sant Fallou sama mag di sant Moussa di sant waa Géejaay gépp Baxdaat di sant sama sëriñ nag sëriñ Abdou Lahad Fall borom Ndar Fall seriñ sëriñ ab Ablaye Fall maa ngi koy sant bu baax a baax di sant doomam seriñ Fallou faal di sant soxna Asu Fall maa ngi leen sant bu baax a baax di sant sëriñ Abdou Karim Mbacke maa ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanam bi yàgg fi te di bëggee ñëpp képp kuy bëggee Biris Diouf rek mag lay bëggee di la jox waa ci waay bi di bëggee ñëpp nag. maa ngi nuyu waa Cambérène bi yëpp di nuyu waa Parcelles un ba six waaw di wuyu di nuyu waa Bawol waa Sandiara xam nga waa Touba xam nga waa Lamine Diobène dimbu tëgg Dugural House xam nga Ñaange Kër Malick Ngombay Ndondal waaw ñëpp maa leen di bëggee di nuyu bu baax a baax di nuyu ñi ma fi àndal nii nag ku ñu mel ni Salman li wax Dodo. xam nga Fatou maa ngi nuyu sama waa koñ yëpp di leen wax ne waa Cambérène gën leen a pare làmb ji laa gën a pare boo ma xoolee combat bii baax caatu caatu waaw kii nii caatu waaw ak grand magique nga xam ne seulement man damaa liggéey parce que sëy yi naa matul sax deux mois ma jëlaat bi kii mënu ma téye 30 octobre la woon kaay fi koo fàtte Sidi Bara Fall maa ngi sant baax baax di sant waa Difonse gépp di sant Mbaye Difonse maa ngi leen sant bu baax a baax di sant Baba Ndiaye borom défoncé maa ngi leen di bëggee du bëggee Pa Faye borom Angleterre yoo xam ne combat bi li mu defoon na dolli lu gën a gaaw.